waa sama gaay comme d'habitude ah waaw temps amul léegi ngeen maa ngi nii dem géej ba teer li laa cheikh ak moom comme d'habitude li ma la waxoon rek te géej gi daa ngelaw nag bengal demul géej ñëpp daw waaw ñëpp daw dama forcé nag dem dama risqué billaay wallaay gis nga gars yi dama ko def dama risqué géej gi daa ngelaw boo bëgg a dee maa ngi nii waaye diig dama risqué dem yàlla dafa ma xéewal waaw gis ngeen maa ngi nii teeri waat comme d'habitude ah waaw ñu laa cheikh ak moom nag waaw rang muy naru rang may naru rang may naru di préparer saison bi waaw gis nga maa ngi nii Element TV jëlal waaw jëlal vidéo bi yaay borom waaw yow fa defal la vidéo quoi yow moom borom baax mooy loolu sa ndawal na kaay jël ko ba pare ngi jiiteel kaay sa ndawal ba pare waaw gis nga gaa gi nu mu mel façon jëm bu ne laa jàpp ne gaa mbaa mu ñëw brosul la yëpp waaw vidéo bii nii ah dama koy may ñu soxor ñi vidéo bi ñu soxor ñi laa koy ñi nga xamante ne yéen ñu kenn am yéen ñu kenn jàmm ñoom laa may vidéo bii nii yaa ngi borom yaay bu ku ngeen la mën a effondré gis ngeen gaal gi dama ko def gaal fees toujours ma wax leen comme d'habitude waaw yàlla lu mu ne da nga koy am sa wërsëg la kenn mënu si dara waaw jëm leen a xool jaayante ngeen di xëy di liggéey di am mais ngeen bàyyi iñaane waate iñaane baaxul doomu aadama waroo soxor ni ko ne sa wërsëg ngay lekk waaw da leen liggéey ngeen bàyyi toog di jëw fen baaxul bàyyi leen jëwaate ngeen xëy dem liggéeyi waaw temps amul nag saison bi gis ngeen instant yi tëj na làmb amul yaa ngi dégg mbëri ñu ngi entraînement maa ngi dem géej pour am xaalis bu paree nag maanaam entraînement yi dem dugg si àll bi defaru comme ñëpp waaw gis ngeen awma temps mooy perte fii nii waaw gis ngeen gaa yi ni ma ko def waaw mu ngi nii 600 kees laa yëpp tey daal mbaay gi sëdd moo si nekk sëdd sëdd ku ko xamul dégg nga ko kees 100000 lay jar waaw gis geen rek muy gaaw 100 111 naru rek